foofu la différence bi am. d'accord Adji Mbergane ni <laughs> day jàppale parce que te gis nañ fi taxaw euh, démb euh, wax yi nga xamante ni doon na ko wax. Euh, ba pare à di à di jours des élections ah te nga bokkoon ci liste takku wàllu. yow gis gerte gi. laay ah. laal tuuti. gerte gi waaw. baykat yi. Mhm. nañ décision bi nga xam ne moom la gouvernement bi jël d'accorduñ ci ànduñu ci. arrangé wu leen. nee nañu ànduñu ci parce que bu fekkee dañ koy jënd si biir dëkk bi fii prix bi ñuy jaayee ñoom ak bi étranger di jëndee bi étranger di jëndee moo leen ëppal njariñ. dañu defe léegi prix bi. te noonu la ma sa demee prix bi fii. non moo tax ma ne la. moo tax gars yi di mbappat du question de décision bi ministre bi oh, jël rek dafa nang décision bi day fekk mu d' ci ak. béykat yi béy waxtaan lay doon di ko jaay. te su fekkee jël na décision bi aussi ba validé ko. béykat yi dañuy jaay seen gerte fu mu leen neexee. waaw da ngay def tere jaay mais instant bi dañu suspendre exportation bi quand même c'est sûr que aujourd'hui y aura un prix homologué boo xam ne man jàpp naa ne. loolu la ma sa amee béykat yi dañ ci gis seen bopp exactement bàyyi yooyu dañ ko dañ ko suspendre. dañu suspendre exportation bi le temps de euh, voilà. dama ne Sonacos mënut a jënd gerte gi ne ci réew mépp ah. Sonacos c'est des réalités yoo xam ne moo fi am. d'accord su jëndee li muy jënd ba pare. ci la ñuy ubbi marché bi dem leen ngeen jaay yi. waaw ñu may ñu ñii dem jaayi Gambie ñii jaayi Mali si a am nga xamante ni moom la soxla ba li ma la wax. bu jëndee li mu li muy jënd ba noppi. li ci des dañuy ubbi marché bi gars yi dem jaay yi je mhm. mais Sénégalais yi sawaruñu sax jaay Sonacos. parce que prix bi Sonacos di fay li muy jëndee arrangé wu leen. boo jëlee exemple les chinois ñoom dañuy jënd. Ah, bu ñuy jënd. Hmm. dañuy ñëw ci tool ba sànc fa seen xayma ñoo ñooy uddi seen oto ñëw jënd gerte gi fay la boo xam ne day fuuxe fuuf li la bi di fay doo ci fay transport doo ci daj coono ñu yóbbu seen gerte commerçant yi jaaykatu gerte yi agriculteurs yi dañoo dem ba loolu ëppal leen njariñ yaa nga commercialisation. gerte waaw loolu bu buñ koy buñ koy doxalee. commercialisation gerte gi ba li ñu bëgg dinañ ko am. vraiment xoolal dama ne. waaw commercialisation gerte gi yàgg na am problème. mais moom la ñuy résoudre béykat bi béy ak coono gi muy daj. waaw la ko état bi di di di di di homologué. Hmm. dafa gis ne bokk ci li koy gën a jëmale kanam. mais loolu bu loolu mooy état bi passé la woon laa bëgg mu wax ne du lu bees. mooy bi passé Sénégal 1960 ba léegi dañuy homologué. moo tax ñu changé moo tax ñu changé pour mën a dundal suñu bopp. Euh, baykat bi dina ci gis boppam askan bi une semaine na nga nii presque 10 jours. waaw yi ñu ci bari ngi def ci réseau yi ñu ngi kaas ne d'accord c'est pas quelque chose. boobu waaw puy nag da ñaan yàlla ñu tombé d'accord ba suñu béy gi ñu koy transformé dund gi wàññeeku loolu la ñu jëm ci Sénégal. d'accord non puy boo fi indee li fi mille cent soixante. déglu wax li fi bëri démb booy jaay man surtout béykat laa man jaareem laa dëkk. Mm. samay maam dañuy béy. Eh, sa loxo yi big nga xam. non man. <laughs> waaye buy xoolal bu ñuy pàdda ci maayen. <laughs> man damay béy sa bi sa tey bi <laughs> formation bi nga nekkee ci tool yi non toolu seen Saliou yi nga doon wax. day baal jàmbur bi day bay allé sama bopp man. barke Cheikh Saliou Mbacke bi ma yaakaar. Mhm. waxewu ma bakkan. waaw yaa ko mais boo demee aux États-Unis les plus grands milliardaires c'est des agriculteurs. exactement. c'est quoi le béykat. Mhm. wala booy béy rek da nga war war a nekk ku torox. booy béy da war a nekk koo xam ne ku ku ñu war a yërëm nga. non nii loolu mu di nga. jiitu na di. kon suñu maam yi dañ leen war a yërëm. non mm. seen yére yi baaxul lañ war a kii daal. oui c'était ironique. Ah, boobu baax. <laughs> allez-y c'était ironique. donc c'est pour dire que <laughs> tey. dafa am ah, ah. décision yoo xamante ne ministre bi gouvernement bi jël na ko. waaw c'est à saluer. très bien mais l'exécution. day fekk nga d'accord ak ñi nga xam ne ñooy. bay gerte nañ naan yàlla ne loolu ngay ñaan gis nga. exactement waaw réew mi su daanoo. Uh-huh. ñun ñëppay daanu. Mm. ba ñaan yàlla Bassirou Diomaye Faye réussir. exactement ci la ñuy fajee suñuy soxla. Mm-hmm. amul kenn kuy waxee bakkanam interprétation mënoo koo tere da ngay jàngale. booy jàngale des fois sa biir classe ak say étudiants wala say élèves da naan l'interprétation de x. d'accord yow doo jël Karl Marx. est-ce que duñu revenir ci suñu question bi Jean Paul Sartre. <laughs> waaw Emmanuel Kant doo ko interprété yow. Mhm. ci école. yaa ngi ñu la interprété école. exactement ñëw pour nga nga bañ man ma interprété. da ngay interprété par rapport ak suñu question bi sëñ Jean Mbaye day interprété. waaw. mais d'accord mesure bi daal kontaan nga ci. mesure bi. kon d'accord nga si mesure gerte gi d'accord nga si Barham Diop. mesure bi baax na. donc c'est interprété interprétation bàyyi bu saaxu day interprété. na dem ci côté boobu. pour que baykat li may wax ci réew mi rek. waaw comme ngay waxee. d'accord soo amee noo waxee bu fekkee gisu ci boppam day jàpp ne nga wax waxu sareet la. d'accord c'est problème. waaw d'accord ah, par rapport ak Adji Mbergane par rapport ak Adji Mbergane. à dix jours à dix jours des élections. Adji Mbergane nag Mame Euh, Massamba Ndiaye ak euh, Gallo Ba les di ak les maires les maires yi ñu récupéré ak yooyu yëpp. dañ leen a récupéré wala ñoom ñoo ñëw seen. tey ba kenn ni dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jàppale. liste Pastef moo toog dugg la ko defee defe naa. defe naa nga toll. non non dëkk bi laa jàppatul maa ko seetaan télé. waaw moom lan képp ko xam ne sa loxo set na. Hmm. te ñu gis ne bëgg nga ñëw ñu ànd ñëwal ñëwal ñu dem ñëwal ñu ànd dem liggéeyi. ñëwal ñu dem ñëw leen. ñu liggéey waaye dama ne ñëw leen baatu ñëw leen. il a appelé à la transhumance. bu ñu ko rafetal s'il a le mot qui est capital et fondamental dans la phrase. maam booy jaaw set. la la ah, wax waaw may ma. yaa ko interprété. ah maam jaaw de Ousmane Sonko toog na fi ne carrément suufu réew mépp gi loxoom génnu ci. Mame Boye Diao mais est-ce que dafa ñëw. dafa ñëw soo ko ko wax dafa ñëw ñu dugal ko biir Pastef. wala moom dana day soutenir Pastef. y un problème. aussi quoi un problème. gis nga gis kaas bi ñu bind ci seen Teranga TV. nga koy liir. nga ne bëggoo liir seen Teranga TV lu weex lii rek nga bëgg a jàkkaar lool. Ah. loolu moo bari fii. mais dafa bari ñu nekk ci lëndëm duñu gis. kaas non dama ne may ma. il faut qu'on soit honnête. il faut mënuñu koo tuddee neneen lu transhumance honnête non attends mhm. et qu'on soit responsable et réfléchi. waaw quand le président du PASTEF bu toggee en plein meeting. Ah. ne ubbi nañ suñuy loxo ñëw leen. képp ku loxoom set. s'il loxo bu set ak loxo bu tilima ci yem. transhumance déedéet non s'il vous mais. le mot là est kon boobu dafa fekk li muy wax dafa appelé ni. da koy na ma bàyyi ma kii. <laughs> bàyyi ko mu àggali. non bu la neexee nga ñëw de. xam nga lu may calculer heure bi c'est-à-dire que da bi man heure bi laay calculer de mais bu dee lii ngay def rek ko sérieusement sa argumentaire bul cisailler le mot clé de la phrase mais képp ku loxoom set hmm. mais loolu ça appelle à la transhumance non soxna sa am nga sa gay malheur moom saa yooyu wax pourtant dama koy bàyyi mu wax ma nangul ko la mu wax ah bon pourquoi man saa yi ma waxee moom samay wax moom du bugg man ma koy développé ni mu ko bëggee. développé développé. et sooy développé dama lay bàyyi nga développé ni mu ko bëggee. parce que li may développé du la arrangé. ah bon c' est ça le problème. allez-y. bu set ak bu tilima ci yem transhumance transhumance la ay xar ak ay nag boo leen yore ñoo noor foire mu naat bu ñu lekkee ñax bi fi ne ba mu jeex tàkk su ñu dem lekk ñax bi nekk Grand Yoff ñax boobu bu ñu rombaal dañ koy lekkaale ba ba ñuy yegg ci ñax bu ñax bi ñuy wëri Grand Yoff transhumance c'est une bétail lañ ko jàppee. d'accord baatu transhumance c'est une bétail boo xam ne à tout moment à tout moment day transhumer di wuti des des terres abondantes. des prairies des prairies abondantes merci beaucoup professeur nga mën na professeur. loolu mooy baatu abon euh, transhumance ay mala lañ ko féetalee ay bétail ay xaraki nag ay mbaam ki gëléem. la ñuy féetale baatu transhumance su dem nit nag bu demee ba jël baat boobu askan la ko boppam ba di ko tiitaroo ba def ko liggéey on doit revoir maintenant c'est quoi la valeur on nous anti d'antivaleur c'est quoi l'antisystème hmm. lorsque Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye prenaient l'antisystème parce que ils avaient vu que avec système bi fi nekkoon dañoo dem ba bafouer lee valeurs hmm. dañoo tilimal valeur valeur amatul dignité amatul ngor amatul Ousmane mm-hmm. Sonko ne non il faut que ça cesse. Ouais. on prône l'antisystème on va prôner les valeurs on dañuy ramener waat la dignité loolu dañuy andiwaat ngor. Mm-hmm. waaye ñu dem mu toog ne bu ñu demee ba jot nguur gi képp koo xamante ne gëmoo suñu projet bokkoo ci yoonu projet bi amal ngor ak dignité nga toog fa nga toog waaw. ñu sax jéem a jege booy sax naan da ngay wut si ñëw ci ñun. Mm-hmm. loolu duñ ko nangu. mais tey c'est l'effet contraire qu'on est en de vivre actuellement mm-hmm. parce que quand on dit que y a des dignitaires de l'ancien régime bi ñuy jiñ dëmm jiñ leen sàcc jiñ leen nooxóor jiñ leen indigne jiñ leen lu ne mm-hmm. ñoo rey jeunes yi dee nangam ak nangam mm-hmm. tey ñooñu la ñuy capitaliser di leen dubbil ay buntu ne leen kaale ñu dem El Hadj Malick Sall l'ancien ministre de la justice qu'est-ce que Ousmane Sonko ne lui a pas dit ci doon doxalee justice bi. Adji Mbergane Kanouté qu'est-ce qu'elle n'a pas dit. Ouais. les plateaux. ah Ousmane Sonko ñëpp di ko seetaan. exactement Mame Boye Diao. demoon nañ ba di ko naan sax dafa bokk ñu ñu doon euh, waa APR da doon naan da doon financé Pastef ci suuf mu koy weddi guddeeg bëccëg suba ak ngoon. bu ñu demee ba mook Mame Boye Diao ñu transhumé Pastef dem bay siisante bu Ousmane Sonko jubale leen y a un problème. la valeur éthique c'est quoi les élèves suñu doom yi dañu ne kon lii mooy politique. Mm. c'est ça le politicien. qu'est-ce qu'ils nous apprennent. non non y a une xam nga mooy lan. reste la là où ils mm-hmm. ndax président Macky Sall pendant douze ans defal na leen lu ne. ñàkk ñu dara pourtant seen i morom lañu nekkaloon ci biir alliance pour la république benn bokk yaakaar ëpp ñu leen mérite. mais yéen yi dama jàpp na ñàkk ngor la ñàkk dignité. yéen yi dama jàpp ne ñàkk valeur la. tout ça c'est vrai ñàkk doyloo parce que waa Pastef. Mm. dañoo gëm Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye ak seen projet. Mm-hmm. xeex ko nag daj si lu ne. Mm-hmm. tey ak lu ñu munti def ñoom ñoo mérito poste yi. Mm-hmm. et toujours dit ah gañ gagne ensemble. gouverne ensemble gouverne ensemble. Merci. il a gagné avec waa Pastef. yi ko gëm à la base da ngay dem Grand Yoff je salue Aliou Ndiaye Fabregas un jeune boo xam ne man ci moom laa teel a dégg booy waxi Pastef Konachap la dëkk moom ak ay moromam ils ont tout donné à Grand Yoff ils ont tout fait ñooñu tey bu ñu gisee ne tey ñu ngi jël ay transhumants. non attention voilà di leen di andi ñoom seen xool dana jeex parce que loolu nekkul woon seen combat mënoo ji ñii sàcc ba pare suba nga wëlbatiku ne leen bu seen loxo setee c'est paradoxal. ajara. c'est paradoxal. mënoo leen jiñ loxo bu takk goudron. Ah. nga xëy suba soxla leen. ne leen est-ce que seen goudron daa mel ni jot ngeen raxas goudron bi de goudron boo ci defee diw euh, pétrole. Hmm. mu set dañoo jël pétrole rek. sotti ci goudron bi mais mais pourtant le président de la république il l'a bien dit. Ah, nee carrément. Euh, ñëw ñu fi pour euh, di làq kenn wala di protéger kenn et que bés bu justice. Oh, xoolal ak foo mën a da nga da nga dem wuy ji même bu fekkee Pastef c'est des discours politiques. mais ah bon le président de la république. dama ne li mu wax c'est des discours politiques. xoolal ñoom c'est des politiciens. président de la république o Amadou Ba o euh, Macky Sall o Abdoulaye c'est des politiciens c'est des discours politiques politiciens. Hmm. c'est les actes Bassirou Diomaye à travers les actes lañ koy acté. fii ak cinq ans. Mm. mais pas à travers les discours benn parenthèse bu ndaw rek laa siy jàpp. d'accord damay dem ba ne est-ce que peur tiit amut ndax boo tiitee ak jommi da mel ni làmp yu jékki-jékki rek fay. ci ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi dem ci Ousmane Sonko ah. ba muy tàmbali waaw mais sama xalaat la. moom moo tiit waaw waaw waaw bàyyi ko bàyyi ko pourquoi bàyyi ko mu àggali non yow man mënoo maa kii jaaxaloo ma man kañ laa def émission xaw ma kañ laa def émission te man kii wu la xam nga wax loolu. waaw ba ñuy waajal élection yi dafa ne liste Pastef les patriotes mooy dem élection législative. Mm-hmm. ñëpp dégg ko ànduñu coalition Bassirou Diomaye. ba coalition Bassirou Diomaye ñu bëri gën di fi sujet comme que Pastef lay demee élection soxlawuñu kenn mais à mi chemin. lan moo waral tey muy daf di récolter ay maire di récolter ay anciens ministres. moom moo leen di récolter wala ñoom ñoo taxaw di ñëw pour pour. <laughs> mais Ousmane Sonko moo toog ci télé bi ñëpp di ko seetaan campagne meeting mu ne kaay leen. mais lu ngeen bëgg a. dëgg ko wax nga li wax on va défendre les développements euh, quelqu'un qui a parlé. mais mais mais en campagne présidentielle quand ci la waxoon loolu. mais yow lii barki démb Ndiaye la da koo waxaat kon. Ajara. Téema teg waaw non non man man bi ma gis. c'était en campagne élec. Euh, mais ça fait même pas trois jours. moom ne la xaw ma Kédougou la xaw ma Kolda matul trois jours. Ajara mu wax ko. ne kaay leen ñu ànd liggéey. Mm. et y a un audio fuité bu Amadou Ba. bu passif. xam nga xara xara. l'audio fuité de Amadou Ba bu passif. mais mu naan stratégie bi nga ne soo ko moo ko teg mais nañ ko ci fekk si dangul ko ko képp koo xam ne ñëw na nañ ko accepter recevoir ko mu insister sax. recevoir laa wax nag moom Amadou Ba audio baa ngi tasaaroo c'est dafa mel ni ñun dafa mel ni daal on n'a pas envie de voir la vérité devant nous on ne juge personne mais dama ne la transhumance ñu koy def hmm. amuñu diñute ñu koy woote amuñu valeur ça c'est clair Adjara ñu koy woote amuñu valeur